Thank you. الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi tayyibin attahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin allahumma thabbit lisaani wa ahdi qalbi bi jaayi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam antaqana allahu allazi antaqa kulla shay'in wa xalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Euh, nu barkeeloo ci baat bi nga xam ne sunu boroom bi nu bind nga xam ne lahu ma fi samawati wa ma fil ard li nu gis ci moom mu ay kàddoom baat boobu mu ubbee ay kàddoom nu ngi koy ubbee sunuy kàddu muy bismillahi rahmaani rahim di ci ñaan yàlla mu barkeelal sunuy kàddu li olof di wax bari lee barkeel lee gën ah lu nu fi rotal ci ay kàddu yàlla na ci yàlla def barke barkeelal nu jataay bi ci barke bismillaahi rahmaani rahim kullu amrin di baalin lam yubda bismillaahi rahmaani rahim wa naaqisun yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko wax mbir mooy dugg moo xam wax baa jëf te ubbi woo ko bismillaahi rahmaani rahim xamal ne barke ba dog na seytaane ndax dañuy jéema a dàqante ak waxtu wi maa ngi say wax ak sama rakk ju baax ji ndax ndeysaan buñ la joxee tamit ci waxtu jamono yi nga xam ne jullit yi day gaaw a dugg mënul ñàkk ñi nga xam ne ñoo taxawal bés bi ginnaaw Cheikh Ousseynou Laye muy farlu ci diine mënul ñàkk ñu sànni seeni kàddu ki nga xam ne mooy kilifa gi président yi yobalit mënul ñàkk mu sànni ci ay kàddu waaye da gis ne yooyu kàddu bu jàllee la kay des lañu lay laaj nga waxtaane ka daanaka doo xam sax fooy tàmbaleek fooy jéexale ndax xataay bi te dafay ay thèmes yu am solo yoo xam ne boo dajalee xale yu mel nii si jamono ju ju mel nii di wax ak ñoom ñu yóbbaale dafa baax parce que bàyyi lay bi ñu yaakaar alayhi salaatu salaam yaram mu ngi ko tàmbalee ci ndaw ba nga juddoo di góor bu ñu la tuddee ba pare ñu daal lay xarafal bu dee jigéen li ñu naan mayu ndes fa ñu toog di la tuddee fa la ñu lay mayee xaarul ba nga am ñaar fukki ak nangam jan fa fanweer ponkal mu tol noonu nga xam ne dañ lay dugal lël xarafal la dóor laa génne nga takki jabar loolu dara wóoru bàyyi lay ku bëri sutura la ku teel a responsabiliser ak njabootam la jeunesse li waral loolu mooy jamono bii da ngay sonn ci yar sa njaboot mbedd yàqal la ko boo nee bu gisul mbedd xëy na du fa roy lu bon nga tëj ko ci néeg bi la xew ca mbedd mag xew ci àdduna gi yëpp lépp lu ciy lu bon mu dugg moom ci néeg bi tëju internet lay yor bu fekkee jotuñu ko yàq ci du ca xam a jàngalo du lu bon ndax xam nga ndaw moom ndaw la rek may ndaw lu tollu ci bëggam muy dox di yónni ay ndawam yu bon di baas ne waxoon na ko de moo tax lu mel noonu moom laa sërëxal ci sama ubbee ngir wan leen ne nag bu nu sañoon yi waxtu wi yaatu lool lool nu wax message yi nga xam ne jëme nañ ko ci jeunesse bi te xam ne Chérif Ousseynou Laye bi muy amal lii la olof di wax naan ndaw lawtanu naajo la nee na boo teelu la woññi rek mu law fu la neexul boo teelu la woññi mu law fu la neexul bi nu ubbee ci bismillaahi rahmaani rahiim muslu ci seytaane sant yàlla julli ci yonentam bi nga xam ne moo ne mën na woon démb mën a tey muy seydinaa limaamullaahi al nga xam ne ba mu ko waxee ba tey dara jara dara jëlew ko fi maa kaana lillaahi daama wattasal wa maa li gayrillaahi inqata wan fasal dafa naa ndeysaan Sidi Lamine mii fi jóge bu yàggul ba muy seede ci Seydina Limaamu waxu imaam Malik boobu la indi ah kaani lillaahi daama wa tasal kaani li gayrillaahi inqata wan fasal lépp loo xam ne ca yàlla la nee na loolu day sax te day jotale waaye lépp loo xam ne dañ ko bëgg amal te yàlla bokk ca ca dog la jëm ca ficceeku la jëm kon sàng bu tedd boobu ba muy amal lii jël bés bi nga xam ne dañu dañu ne ci la baayam juddu démb waaye comme ci la baayam juddu te moom muy doomu Seydina Isa la yonent bi waxoon ba mu laajee ñu ne ko yahud yi dañuy dañuy màggal sawe ga nga xam ne yàlla sawe woon na ko yont yàlla Muusa ci Firawna ak i ñoñam wa iz faraxnaa bikumul bahra fa anjaynaakum wa gharaqnaa ala firawna wa antum tanzuruun ñu de ko or mu ne man mi yonente di muy sama naw la yonente maa ki gën a yey maa leen gën a yey ci or ko kon Chérif Ousseynou bu ne maa leen gën a yey ci sama baay te boo seetloo cosaanu feet bi feet payen la woon ñu tudde ko la fête du Dieu soleil la fête de la lumière moom la ñu doon fête le vingt cinq décembre ñu ne kon fête de la lumière te Jésus mooy la lumière du monde kon loolu mën nañu kaa askanele Jésus ni ñu ko ñàkk moome ñoom nan noonu lañ ko ñàkk moome ndax màndarga yi nga xam ne moo àndoon ak juddoom ca étable ba loolu nekkul waxtu hiver mais diine day def loolu diine dinay roy dara ci lu jiitu mu jël ko rafetal ka daldi koy dugal ci diineem kon Chérif Ousseynoulahi yal na sama borom dolli ay leeram mu ne kon xale yi ginnaaw dañu ciy fooy naa leen jël dajale leen ci bëccëg bu mel nii yedda leen delloo leen ñoom jeunesse boobu wan leen fu ñuy teg seeni tànk amul discours bu mu waxul jëm ci jeunesse bi ak bañ copier culture jàmbor kon <laughs> li yonent bi wax ne man sanna fil islaami sunnatan xasana kaana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di laa yanqusu zalika min ujurihim shay'a moom foofu la taxaw bokkul ak man sanna fil islaami sunnatan sayya kaana alayhi wisruha wisru man amilaha biha min baadi la yanqusu zalika min awzaarihim shay'a moom sunna xasana la ko def mooy dajale xale yi delloo leen ci yàlla kon nun lii ñu daje di ko def tey yiw wi mu ngay fekk Cheikh Ousseynou Laye fa mu tëdd ci booru baayam ndax noonu la ko maamam waxo woon déma ba koo xam ne saxal nga fi sunna su rafet pay ga ka ca yàllay fay bokkul ak ñuy ñëw gannaawam di ko def yàlla dina leen fay te du wàññi ci pay ak kooka dara bu dee sunna bu rafet la bu dee sunna bu ñaaw la itam lu ñaaw la nga doon def yàlla dina la ko fay ña koy def ci seen gannaaw yàlla dina leen fay fay la yow te kenn ku ne la la yàlla fay du wàññi li sa moroom am dara beneen bi imaam Mamadou Wade nga xam ne tafsir ndikke mooy waajuram mu juddoo ca gànjool suma tafsir ndeke ataa wa qawmoo li wajila hmm. suma tafsir ndeke ataa waajuram woowu da àndaale mooy ndaw wax na ne bàyyi lay jël ko tal ni xal xayru xalxi ne ko tafsir mu ne ko laay mu ne ko Mamadou mii bokkul ci yow Mamadou ci sama njaboot la bokk sëy naa limaamu jëlal ko boppam loolu lu rëy la ca la ko dénk Seydina Issa mi xam nga bu ñu defee appel de la jeunesse fii ci kanamu Seydina Issa bàyyi lay ba muy jël xale yi taalibe saaba ya ca jamono yoojo doon leen dénk naa isaa booba gisoon na li nee na am na benn bés mu daal di leen jiital ñu war a dem tool moom Seydina Isa wax nañ ne musul nangu waxambaane wu xëy di yendu ci dëkk bi moom Seydina Isa jàngi baa liggéey rek ba mu jiitalee ñooñu nga xam ne bàyyam Seydina Limaamu moom la leen dénk ñu jiitu ko mu jóg di dem fekk mu ngi taw bi muy taw muy dajeek ñoom ñuy woññi ko ne leen waaye yéen fu ngeen ñu ne kaa ah, ñun taw bi ñuy taw moo tax ñu bëgg ñibbi mu ne leen taw dong moo tax ngeen bàyyi sama ndigalal bàyyi ne da ngeen ñi ñibbi daal di faa xam yetam moom Seydina Isaa ku yàgg yar la di ko jëflanteeg moom ba am ñu dem si Seydina Limaam wax ko ko bàyyi laay daal di ñëw àtte leen ndaka isaa daxaa la rey may taalibe isaa ma ndaw daxaa la rey may taalibe dama la dénk waaye door loo ma la mu nekk sa ndigal ku ko teppi ma dal ci kawam waaye dégg naa ba mu des imaam Mamadou Wade rek moo desoon sa tool ba mu ne léegi nag nanguwaat na ma may taalibe du Wade nag ginnaaw déggoo ngeen bàyyi naa ko yow mais loolu ndam lu rëy la sama baay Babacar juróom benni weer la def Cambérène doon wéttali ma Mandione ginnaaw génn àdduna ak Seydina Issa waaye juróom benni weer yi mu fi def yépp kër ilimaan Mamadou Wade la doon fanaan bu xëyee dem toog ak Seydina Mandione yéen ndoog moom ba guddi mu ñibbiwaat juróom benn weer loolu doxoon na diggante ilimaan Mamadou Wade ak sama baay Babacar Laay imaam Mamadou Wade Seydina Issa jël doomam bu jigéen dénk ko ko soxna Maanatu am na sax njaboot Tamsir Ndike yal na yàlla dolli leeram bu doonoon boroom xam-xam ci wàllu chimie bu jaaxaloon tubaab yi am na ca Fatou Wade ah, Fatou Ngom ak Fatou Wade ñu ngi fi ani ñoom ñu ngi sama kër baay moom doomi Seydina Isa jooju fan la génne àdduna kër Seydina Ababacar la kon ilimaan Mamadou Wade la Seydina ma joon daan wax naan na ngeen fexe ba kenn ku ne am leen teg sama waa kër bàyyi ëllëg mu mën saa dëgg jàllale leen moom naa naa ma Seydina Majoon naa Babacar ñëpp ay xaritam lañ moom la Seydina Isa déewloon place bi ñu ànd timis ginnaaw timis ci lëndëm gi mu ñëw kaka fekke nee na ba ñuy wax la ñuy wax xam naa ay arab la xaw ma lu ñuy làkk waaye fii la ko ne bi mu génnee àdduna lañu wax day mu jox ko jumaa ji 1931 daal di kay gëdd nag ndax bi ma ko joxee muy sikki hésité dana ko ubbil jàkk ji te jiite yow ma booy seet xoolal koo xam ne ci ndaw nga ñëw ci bàyyi lay nga sell la yonent yàlla bi wóolu la ba jël lu toll ni jumaa dénk la ko nga jiite ka 44 ans 31 ba 75 muy 44 ci la njabootam jël yal na yàlla dolli ay leeram moom itam la jeunesse face au défi de au défi actuel man damay wax naan quelle jeunesse xam nga baatu jeunesse dafa yaatu man nga ne jeunesse americain ci wàllu culture bokkul. ak jeunesse française ci wàll culture bokkul ak jeunesse sénégalaise waaye kenn ku ne sa rêve mooy lan une jeunesse na la jeunesse saine peut seule procurer une bonne vieillesse kon bàyyi lay jeunesse saine boobu la doon yare waa këram la jeunesse saine peut seule procurer une bonne vieillesse waaye mu ne jeunesse de plaisir vieillesse anticipée waaw topp sa bànneex rek yaa nga ca alcool ba yaa nga ca poma yaa nga ca cigarette sa kooku du du du màgget te waxtoom du jot chasteté de jeunesse et santé de vieillesse fa la bàyyi lay doon yare waa këram ngir ñu doon jeunesse bu la olof dafa wax ne yàlla boo ko dénkee sa doom ci ndawam bu màggee mu delloo la waaye soo ko xamee sa doom ci ndawam bu màggee mu xañ la ndax xam nga tubaab dénkul yàlla doomam ci ndawam gis nga ni ñu xaw a utee ci culture tubaab da ngay gis bu doom ji laata juddu sax pareel naka sàmbaram def fa lépp luy ay jouet nga judd rek ñu séparé ak sa yaay waaye ñun da ngay judd rek tax taxu ci sa dënd bi yaay moom ngay fanaanal moom ngay yendool ba toll ci dem daara ñu yóbbu la daara gis nga kiy jóge daara buy pare ci daara ji di ut lu mu def waaye kiy jàng français buy pare di laaj comme ni ko libaas waxe état liggéey ah. ki jóge ci daara jàng alxuraanam jàng xam-xamu diine génn xam nga kooku xelam dajalu muy dem di laaj état place li waral chômage bi bari parce que état aussi la mu am mooy kéem la ko yàlla jox ci kantan mais su fekkente ne kiy jàng itam bu état yeexee mu ut ay pexeem dem liggéeyi dimbali dina dimbali boppam dina dimbali état parce que état noonu la état noonu la état du baleel kenn biiram néegam du baleel kenn biir këram man ngaa bale ni génn ci mbedd mi état jëlal la ko sànni la jëla ko kon yar bi ñun ñoo ci jiitu olof nag dinay wax ne ku yar sa doom def ka buur bu màggee doon bandi rek lay toog ku yar sa doom bu màggee doon bandi kuy bañ mu jooyit bu màggee jooy loola léeg-léeg ñu ñëw di ñaan intervention ci ñun ah diwu day du ñu wax kat la mu def wallaay bés bu ne lu mel noonu nu indil na ko bés bu ne boo yaroon ba yar jotee amaana ba lii dal sa doom ko jox sa doom ci ndawam yàlla bu màggee yàlla delloo la ko waaye gis nga ñu joxul seen doom yàlla bu màggee lan la xale yi def dem nee na boo ko xañee yàlla nee na yàlla xañ la ko moo tax tubaab bu amee 18 ans dem bu màggee ba am teraanga jël ay waajuram yóbbu leen ci maison de retraite yi kooku dina la jëriñ du la jëriñ moo tax mu ne si jeunesse savait et si vieillesse pouvait loolum njàng la moo tax génn góor daan ne xale mën na laa jàngal nu nuy ware mbaam waaye mënulaa jàngal jikko ja monsieur le ministre xale mën na laa jàngal nu nuy ware mbaam ndax yomb na waaye mënulaa jàngal jikko ja ndax yàggul ak mbaam kon si jeunesse savait ndeysaan si vieillesse pouvait ndax vieillesse dangay dem bakkanten gi jeex oisiveté en jeunesse travail en vieillesse bu dee danga nga topp keroog suba gi rek ni ko Cheikh Ousseynou daan waxe fu attaaya ja nga dem ngénte la nga dem marka ji laax yendu ko ani xam nga doo am jom waaye xam nga fan la la yàllay xaar boo ba nekk mag nag yaruñu la yaroo sa bopp yaroo sa njaboot nan ngay def pour dund Oas vit en jeunesse travail en vieillesse boo demee ba nekk mag nag da ngay gis mag ñoo xam ne dañuy denc denc denc denc nga di leen yërëm te fekk la nga leen di yërëmee yàlla tegu leen ko ñoo ko teg seen bopp ndax ku xañ yàlla sa doom ci ndawam mu xañ la ko ci san ci magam wala konki jàppaak julle ngeen màggaale fu ngeen fi jëm yàlla di see àndaale ngay départ du général pour arriver au particulier jeunesse bu Sénégal ak bu France bu États-Unis ay nit lañu ay êtres humains lañ mais différence bi mooy ci culture yi beneen différence ñëw muy religion yi bu ñuy def journée mondiale des jeunes catholiques ñoom démarqué wu nañu ah démarqué wu nañu. tey xëy na bu ko nit yi diine defoon lislaam defoon ñu ne gis nga ay intégriste lañ ñoo jëkk a démarqué wu daal di def benn journée mondiale bu ñan jenes catholique kon boo génnee jeunesse yi si wàllu culture nga génn jeunesse bii ñu too jàkkaar lool ñuy ay sénégalais benn di ay jullit ñaar ñetteel bi ki nga xam ne nasiril xaq bil xaq la ñu gëm ki andi dëgg dooleel ak dëgg muy Seydina Limaamu moo ñëw ca xale ba muy tooy kon Chérif Ousseynou Laye jeunesse bii la daan jàkkaarloo li ma daan wax maam daan da daan wax nekk leen i laayen te jàkkaarloog ay laayen <laughs> lan lay firi nekk leen ay laayen mu ne ay Imran bi muy wax nekk leen la ay laayen ay laayen la jàkkaarloog Chérif Ousseynou firil na loolu moo ne laayeen comportement la laayan tere nañ la saaga ca ba ngay naw kon yii am ci internet yi wax yu ñaaw yi ñuy wax kilifa yi képp ku ci bokk ne laayan nga dog nga ci Seydina Limaamu maa la wax loolu ndax musuñ ñoo xamal lam wax ju ñaaw mag ñi sax dañ laan oh dama lay bantal katawaay doo dégg ñu saaga a Ngam ndeysaan boo ko daan waaye kii waaye góoru àjjana gi loolu moo doon seeni saaga dama laa bantalkat xamuñu saaga tuux amul si kër Seydina Limaamu waxuma ak sàngara dama ko jëllaale comportement bu ñaaw bu indécent amul kër Seydina Limaamu ndax ku la sox loolu lu weex ah laay dafa la neex dugg dafa la neex toog bu ñëpp tënkuwoon ci rubaay laay alayhi salaatu wassalaam kaso du am gendarmerie du am police du am armée du am ndax ki la ne ku la dog ku la dab dog sa kurus foral say per te dem ba kooka bañee ne doo for per yi teg ca tànkam bàyyi ka kurus gi te dem uti geneen kurus kooku dina jotee kenn oh kooku du jotee kenn kon lu ñuy doyee kaso lu ñuy doyee gendarme lu ñuy doyee police laayeen yooyu mu si fi am laa taakulu illaa fan la détournement di amee bu leen lekkee la dul leew est-ce que bu ko Sénégal yëpp amoon détournement de deniers bàyyi laay dafa bokk ci jàngale nee na li ñuy jëkk xotti ëllëg ci biiru doomu aadama mooy lu araam li mu doon lekk te màndargam texee di ci doomu aadama mooy lekk lu ko sob lu ko neex rek faalewul dagan na faalewul araam na faalewul lunta na bu ñëpp a yoroon bàyyi lay yar bu mel ni Seydina Limamou kenn dina am problème détournement de deniers publics doo am laa tashrabu illaa tayyiban wala talbisu illaa tayyiban bu leen warit leeralu tey wala tarkabu illaa tayyiban waa lan la bàyyi laay wax nee na yow mi naagu di demi daayira sol weex fanaane sikar na fi mu ne mën naa toj dëkk bi bu samdee ma tudda laay laay la la samay bàkkar set bàyyi loolu taxu ko woon a jóg baat ba dafa ànd ak jikko ja na baat ba sell sellaleel noonu col ga sellaleel noonu jikko ja ndax nee na bagaanu soow bagaan soow kaasu deret yàq na ko ku fekk sa bagaanu soow jël kaasu deret sotti ko sa deete nga ko naan doo ko naan buleen leen xeeb jëf ju ñaaw bu leen xeeb bàkkaar lu mu tuut tuut nee na alal ji lewul boo ko dugalee ci alal ju lew da koy yàq da ngay gis ku bari alal mu ngi ci yoonu France rek ay rendez balaa dee kay alal jooju mu nga xam ne doon na ko amee nu ko neexee boo waxee mu ne la fin justifie les moyens tous les moyens son sont bons kooku lan moo koy dal mu ngi ci yoonu France rek dama ko ñëw rek bu ñu demee ñu jox ko ay anes anes ay ay antalgique du yëg douleur feebar bay dem rek ndax ñoom xaalis bi muy indi moo leen intéressé loolu bëggoon naa suñu autorité yeewu si xaalis yooyu ñuy génn di ko yóbbu ci dëkki tubaab yi te doo mu jël lu dul dee mën nañoo gas sa dee di la ko nëbba di la jox ay rendez rek. bu ñu la joxee lu calme say douleur feebar baa ngi rampe di dem yow nga ne wér na boo ñëwee di tëb a xadal fekk feebar baa ngi dem douleur yi lañ la teggil alal jooju suñu ko defoon ci hôpitaux yi fii li ñu bëgg dañ ko am parce que ñun suñu gars yi kenn gën lu ne qualifié mais c'est vrai malheureusement timis baa ngi jot nii lañu ko naroon a topp wallaay la azim wax leen loo xam ne kenn ko ne dina la mën a doy yombal ku ne dina la mën a doy yombal waaye nag bàyyi laay dane diina ja ak mag ñu muus ba tax ne lii ñuy dëgmal muy élection yi ndax damay bañ ñu nodd buñ xisee ba nodd rek repos garde bu yàlla soxlaa ñëpp a taxaw ñu di leen dénk lii nu dëgmal na ngeen nekk ay citoyen am na devoir civique boo xam ne Seyna Issa mi ñu jàkkaarloo daka respecté woon daan ko doxal Seyna Issa bi mu génnee àdduna dafa bàyyi carte électeur am bul coow bul xuloo bula kenn utiliser di la defloo benn violence bu fekkente ne ni Seydina Limaamu yare nit di nga am comportement boo xam ne ku dul yow dina ci xool ba nga yaraale ko dinga dem wate Sénégal gépp wate bu ñu xëyee ñëpp liggéey ñëpp liggéey waaye force sama kandidaa fal dina doy ci ànd ak dal accomplir suñu devoir civique boobu bàyyi laay dafa ñaanaloon karpo député tubaab la woon booba mu ngi xëccoo ak marchand bàyyi lay ne ko dinaa la ñaanal waaye ci yow la député bu weex di mujj moo tax ba Blaise fekkanteeg Seyna Issa Blaise ne sama bàyyi waxoon na ci Carpok la député bu weex di mujje kon ku ñuul kii mooy wate mooy gañe kon te li mu li mu li gën a noppale ma jàppale ku ñuul kii ndax sama bàyyi waxoon na ko te sama bàyyi lépp lu mu wax rek teg nañ ci ba ca la Blaise nekki député Senghor mii ngay gis ba Lamine Gueye ñëwee wax ko lébu yi wax na ne leen am na benn sénégalais wax leen xam-xamam ak xaralaam lébu yi di dajale pour ñu jëli Senghor keroog la ñu jot a dajale sëñ Ablaye nee na li ma sama bàyyi jox ma yóbbul leen ko ba ñu demee maanaam bu doon ne fukki dërëm a sa des bi ñu wàññee li naa Seydina génn ni dafa toll net ak la leen dese woon kon moytu saagante yi bu kenn utiliser ci dara naam fan yi ay coow ay nit yu ñëw toog man photo yooyu gis naa ko ndeysaan xale yi njaboot gi ñu bari mer ndax xëy na dañ ca wax lu ca bokkul yooyu am na fa ku nekk wax njaboot gi yëpp doom yeeg ku nekk wax mais nag noonu li nu leen di dénk sëñ Ablaye daan leen ko dénk sëñ Ablaye dafa doonoon nit koo xam ne moom façon maslaam dalay dem sax yow boobu boo dee nit koo xam ne tête bruleel nga yow dangay dem ba mere ko sëñ Ablaye mën na gërëm koo xam ne defalu ko dara ndax lan la gëm mooy nguur yàlla kay fal sëy naa li maamu dogalu yàlla ñun ñi gëm dogalu yàlla nanu am mànduk lu yàlla dogal ci sunu moroomu jaam ñu nangu ko noppalu boo bëggee forcer yàlla yàlla forcer la nga dugg suuf sëñ Ablaye daana wax ne jal bi nga yaakaara toog ëllëg bu dee danga koy fàkk di ko gas di ko gas ngir bëgg ki nekk ci kaw wàcc nee na bu wàccee yow boo waree toog dafa fekk ab jal nit ku ne sañ ngaa wax li nga bëgg nit ku ne sañ ngaa wax li la naqari waaye nga wax ko ci teggin sóoraale yàlla mi nga xam ne moo yónni bàyyi lay lu waaye doon yàllaa ko dogal ci yow dama daan wax bu nu toogee fii ñu ñaanal xalifa Sall ndax li mu def ci sunu xëbrub naa Issa bii nga xam ne mooy sunu yaakaari tey ak man damay wax naan ku may jàpp ci jërëfa jëfa diw juum nga noonu lool lan nu yar ku nu defar rek ñu gërëm la yaa ngi wax léegi li président defal sëñ Ablaye maa ngi dégg ne ñu ngi war a eggali fii ay sëriñ lañu ñun njaaxaanaay lañuy ñuy tudd ndax bu problème amee bu nu par parloo nan la ñuy àttee kilifa balaa mën a àtte day fekk mu màndu jeex na day fekk rek mu màndu màndu googu nag ngeen bàyyi nu si nu ngi gërëm ñëpp di sante ñëpp waxtu wi jot naa la kulli xaal moom laay mbaam jun mën a gis nga lii dafa metti ndax itam waaw ziyaara sa Ablaye bi le 5 janvier ñi amagul jabar nag góorgóorlu ni ngeen seet ki ngeen bëgg ñu may leen te jigéen ñi amul jëkkër it bàyyi leen gànt gu bari geeg taamu gi <laughs> monsieur le ministre ñu lay gërëm di la sant ndeysaan nium waaw bala cinq ñoom ñu ministre la jërëjëf kontaan nañu trop